xoolal gaa yaa ngi si Auchan bi si Auchan bi lañ nekk sànq na lii yéeme na lool lool xoolal lii xoolal lii lii yéeme na lii yéeme tey moom tey moom tey moom tey moom tey moom sénégal moom dafa yëngu dafa yëngu lool lii mu may fàttaliku 2012 la may fàttaliku 2012 ba Ablaye Wade ñu koy bëgg a daaneel noonu ma yéeme na lool yéeme na na lool lool lool lool ah sama gars yi maa ngi fi maa ngi fii nag affaire yi métti na métti na lool sama ndey uyaa dëkk bi tàng na wala police yi lakk police yi ak ñëwoon ki joal ya joal ya joal yàq nag yàq nag muy sama taal seen pneu waaye ñi tam dañoo yeex fi ko taal baaxul sax fi ko taal fii dañoo yeex non kii kii kii tam ñu gaañ ko sax i wala ci ñu ko sa ay l'asper l'asper waa yëpp ci xeex bi la l'asper boli sama que dina yegg yow. daa laay waxal tey Sénégal bu tàkkee na la leer ni yow yaa taal tey bépp bakkan bu fir dee wala mu rot fi na la leer ni yow Adji Sarr yow yaa rotal yow Adji tax nga tay ma rusa doon jigéen yow aji lan moo la war a mën a jalal tey nga mën a hypothéquer avenir u Sénégal ak avenir u Afrique président Ousmane Sonko bi nga xam ni tey dafa wane dëgg taxaw temb ne day jàkkaarloog ñii nga xam ne lépp lu ñu dal ñoom ñoo ko teg yow aji Sarr en tant que jigéen xale bu ndaw am sa avenir ci sa kanam lan moo la war a mën a jaral tey ngay hypothéquer avenir u Sénégal Adji man jigéen laa wante yow tax nga tey ma rusa doon jigéen yow Adji bu fekkee ni tey am nga ay mbokk na la leer ni gàkkal nga sa askan yëpp yow Adji bu fekkee ni am nga doom wala ëllëg yaakaar nga am doom xamal ni sa doom googu wutal nga ko way bu dul fay yow aji képp ku bokk ci sa askan rus na ndax sa jëfu tey na la leer ni nag di nga bokk ci ñi nga xam ne bu ñuy lim histoire bu triste bu senegal dinañ la ci boole tu es rentré tristement dans l'histoire aji te na la leer ni xale bu ndaw hypothéquer sa avenir pour ñoo xam ne jaruñu ko ndax xaalis ndax lan ndax tey nga jaay sa ngor jigéenu Sénégal yëpp nga gàkkal leen yal nañu yàlla atte ak yow di leen wax rek ni président Ousmane Sonko du ku ñuy fawee président Ousmane Sonko du ku nga xam ne dañ koy bàyyi ñu koy faagaagal si noonu ñun patriotes yi dañoo taxaw temb te bu leen yëboo ngeen xam ne balaa ngeen a jaar ci kaw président Ousmane Sonko leen jaar suñu kaw li may daaneelee nag mooy les jigéen la ñu utiliser pour xeex président Ousmane Sonko na leen leer ne ay jigéen ñoo koy xeex ñun ñoo koy xeex ñun waa jigéenu Pastef ba ngeen xam ni fii Sénégal rangoo ñu baadoo la dootu fi cimetière bu yow aji nag na la leer ni ëllëg dinañ la takk dugal la si sa bàmmeel te sa ay jëf kese moo la fay fekk yal nañu yàlla àtte ak yow président Ousmane Sonko na la leer ni ñun patriotes yi tey lañ la gën a feddali suñu kóllëre suñu wóolute te nga xam ni foo nekk dinañ la gunge combat boo nekk dinañ la ko gunge mu leer leen ni même si vous enfermez président Ousmane Sonko des milliers et des milliers de Ousmane Sonko sont nés ici au Sénégal et partout en Afrique ah et cette vent renouveau cette révolution qui personne ne peut l'empêcher wasalaam foofu laay